saxaaba yi itam kenn ku ne am na lu ñu doon def xam ngeen ni ñi ñi jëbbaloon kenn ku ne bu ñu ko toppoon day gudd waaye kenn ku ne am nga coono yoo xam danañ la ko tàmbali teg waa dëkk bi ñoo ñoo maase ci ne nañ leen sonal bokk na ci coono yi mooy fi ne Abu Jahl daa def kuñ ca gën a jébbalu na la muy njëkk a def mooy seeti la xas la ci digg nit ñi waaw day fex ba indi la ci penc mi xas la ci digg nit ñëpp bu la xasee itam du ca yem dañ lay tàmbali ci sa wàllu alal maanaam bu fekkee da nga daa commerce da lay wan ne la sa commerce daan na tey maanaam dañuy dañuy fex ba nit ñi ñu bëri ci ñoom duñ jënd ci yow duñ jëflante yow su ko defee nag sa commerce da daa tàmbali wa daan say mbokk yi lañ njëkk a def mooy xeex ak yéen maanaam Seydina Omar dinaa ci ñëw léegi moom daa ne kenn mësta tuub lu may ni mbokk yi dañoo dañ dañ dañ ko maanaam lañ njëkk a def mooy maanaam ma am na ñoo xam ne say mbokk bu ñu ko déggee lañ njëkk a def mooy dóor kenn lañ dinaa ñëw léegi xam nga Seydina Ousmane moom bi nga xamee ne jébbalu na Seydina Ousmane bi mu bi mu jébbaloo xam ngeen ni moom lañ ko njëkk a def mooy kenn ci mbokkam dinaa wax tur bi bu ma si ak bu ma si accès dafa jël ak siyaada rek tëral ko ci lëmas ko lëmas ko lëmas ko lëmas ko ba siyaada gi jàll mu jël nag saxaar nag di ko ko xër ci biir ci biir si siyaada gi ak di ko dóor ak di facc kawam di dal tëbëgg dal ci kawam noonu lañ dara kenn ku nekk boo jëbloo faw ñu sonal la waaw Ousmane bàyyam bu ndaw moo ko doon def loolu Mus'ab ibn Umayr itam bokkoon ci njëkk a jëbbalu doon waxambaane woo xam ni ci dund ko neex la nekkoon amutoon benn jafe-jafe yàlla dogal itam moom bi mu jëbbaloo yaayam moo ko njëkk ak seen wàkkar ñoo ko njëkk a wan ginnaaw bokk na ci ni ñu ko wanoo ginnaaw mooy maanaam lekk lañ ko xañoon dawut mën a lekk ci kër gi ak mboolem njariñ njariñ yi nga xam ne moo ko daa jógee ci kër gi yëpp ñu xañ ko ko nga xam daa mujjoon dara bi ci boppam ku ko gis xàmmee ko ci maanaam ba mu jëbbaloogut ak ba mu jëbbaloo boo gisee dañ ko ci xàmmee maanaam mujj der bi ci la yoo xam daa wow xam nga nit kuy dund ab deram du bokk nit koo xam ne dund dañuy wute maanaam yaram wi nag daa mujj wow jeex maanaam ba ngir ñàkk gum ñàkk am ay maanaam lekk lam daa lekk mënatu ko lekk ngir waa këram seen waa kër ñoo ko ko xañ bilaal moom rawatina moom ñëpp ko xam bilaal ibn mi nga xam ne ibnu rabax mi nga xam ne umayyat ibnu xalaf moo ko moomoon Umayya ni moom lu coono bu ne teg na ko Bilal moo tax Bilal moo ko bañ gis bañ tasee ba mu taseeg moom bisu Badar dana ko insha Allah yow moom doo mucc comme kan waaye yow doo mucc moom ndax moom bokk na ci li mu daa def mooy danaa jël Bilal takk ci ci ci baat bi ak buum jox xale yi neen wëlle nag moom dëkk ñu di ko wërale di fo di fo ci moom mbedd mën nañu ñu dugal ko mujj nga ne baat bi daa xerandi ko xerandi ko ba ba ba ba boo gisee xam fi bu buum yi jaar moom Bilaal Daawud yem ci loolu Daawud yem ci loolu da da ko daa takk ba mu ne ñii man da ko daa yóbbu ca ci biti dëkk ba xam nga Makka ay ab beeñ la wax ne suuf si bu bëccëgee beeñ bi day day tàng te da bàyyi bu bu bëccëg mu yóbbu ko ca beeñ ba fa mu gën a tànge simmi ko ba mu set mu takk ko nag ba mu ne ñadd mu jël fonkali doj teg ko boole boole ko yar bi nag di dóor dóor ba ne ko nag sama damaa tox si waaye bu ma nopp loolu ñëwaat mi nga boole koog it du lekk maanaam ba mu jëblu rek laa la ko gën di jox lekk maanaam lekkut naanut bilaal daa nekk loolu ba xam ba nga xam ne du fa nekkati mu tiim ko di ko wax ne ko waaw dama bëgg nga maanaam benn nga xas muhammad wala nga ne weddi naa ko wala nga tudd suñu yàlla yi laata ak unsa wala yooyu loolu loo ci wax rek mu bàyyi la waaye Seydina Bilal day wax ahad maanaam allahu waahidun loolu la daa wax ba mujj mënatu ko wax mooy ahad bu demee ba xam ba xam ba xam ba ximbali ko bu jugatee ñu ñëwati ci mbugal mi kon léegi moom mu kon ne di wax ahad ahad ba xamati ahad ba xamati xam ne benn bis Seydina Aboubacar moo ko fa romb ci coono boobu daa di wax ak Umayya ne ko léegi nga nga jaay ma ko umay ne ko fii moom soxlawu ma ko loo yor nag ma jox la ko am nañu ne juróomi dërëm la ko jox am ñu ne juróom ñaar am ñu ne da koo wecc koog moom ci beneen jàmm bu mu amoon boo xam ne jébluwutoon maanaam Aboubacar ko moomoon te jébluwut waaye lu ci mën a xaw Seydina Aboubacar moo ko jënd goreel ko boole xam nga ni jaam amoon na waaye ni ma ko waxee lu bari rek jaam ak tooñ la woon gu fi nekkoon mooy bu njëkk buur yi dañ daa def kuñ xareel maanaam de buur yi fii Sénégal rek dafay amoon dañ daa wax dëkk sàngam koo fanaan rek ab jàmm la dëkk ba ñi nga xam ne bëgguñoo nekk jàmm nga xam ne moom dañoo fonk seen bopp moom ñooñu moom dañuy gaaw kër kër jéem dëkk ñi nga xam ne mënuñoo dem fenn ngir néew doole dañuy toog ñu jàpp leen jàpp am na ñoo xam ne dañ daa tase yow ci mbedd mi rek foodan la gis nga fii dañ daa bu yeggu dara dañuy dañuy dañuy tiit loo gone yi ci naar naar yaa ngi ñëw fekkoo ba ay naar ak ñeneen nit ñoo ko daa def dañu daa romb ab xale rek këf ko takk ko yóbbu jaay ko feneen loolu daa am jaayi mutane ba léegi mutane moom njaam nga des na ko wante nag ma ngi fay jeex ndànk-ndànk loolu nag moo amoon jamono yonte ba itam mooy ñu bare bari bilaal mi ak ñeneen ñu bari noonu lañ leen jàppee ci àll bi jaay leen ndax bu njëkk dara marché yoo xam ne ay nit lañ fa daa jaay waaw ñi nga xam ne yow mën a tooñ dañuy sax ba am nit rek ñëw jaay jaay ko suuxu naqaaf lañu lañ ko wax noonu lañ ko toppoon Ammaar ibn Yaasir it moom mën naa ko ci tudd moom it noonu moom jaam loon buñ goreel mu nekk ak baayam ak ndeyam waaye banu banu maxsuum ñoo ko moomoon xam nga nit bu njëkk bu ñu la goreelee teewut ci ña la goreel ngay topp rek ñu nekk say kilif ñoom nag dañ daa def dañ dañ maanaam rawatina Abu Jahlin ñooy gën a amaar moom mu ngi ci dëkk bi te maanaam maanaam bokkul ci ñax yu rëy yi nga xam ne moom jaam la woon buñ goreel rek moo tax dañ dañ daa ñëw génne ko moo seen waa kër gépp yóbbu ca yóbbu ca ca àll ba maanaam fa mbir mu fa naaj wu gën a tàng rek ñu takk leen ñoom ñëpp amaar ak bàyyam ak yaayam di leen fa sonal ak di leen mbugal léeg-léeg ñu leen di diri léeg-léeg ñu ñuy dóor lu ne ñu def leen ko xam ngeen ci njëkk faatu mooy yaayu amaar moom muy ki ñuy wax Sumayya moom Abu Jahlin da ko tiim ne ko yow jigéen nga xam nga coono bi nga nekk neel dikkal ci suñu diine ji rek ma wax nga wala nga wax laata wala osa mu bàyyi la mu mer daal di koy tifle bi mu ko tiflee mu jël xeej bi dëbb ko ko ci ci xol bi ci biir bi mu daal di faatu kooku moo njëkk a faatu ci lislam baay bi itam baay bi Ammaar itam muy Yaasir moom dañ koo jàpp di ko xoj ak di ko sonal ba mu ba mu sedd guy moom ñooñu moo ñu njëkk faatu ci ci ci lislam yonente bi mas na leen faa romb waaye boobu yonente bi mënu ci dara leen muñ leen muñ leen ku ci dee àjjana nga ngay ngay dekkee sabran ala yasir fa inna mawidakumul janna maanaam coono bi rek ma leen def ci àdduna maanaam ngeen daf dugg nag ci xéewal yoo xam ni monsieur su ta gis lu nu mel noonu ci ci xéewal yi muy muy àjjana joo xam ni maanaam àdduna moom lu mën a xew dund gi daal limité wu mënoo fee dund ëpp maanaam même boo bëggee jàmm itam mënoo fee dund ëpp téeméer at jëm kaw seen ay milliards yi milliards yi at du jeex nga nekk ko ci xéewal yoo xam ni doo sonn doo yëg benn coono àjjana ba fa xasee ne doo feebarati doo ñaq doo tilim doo xasaw doo am benn problème doo julli doo wor ay jàng yooyu yëpp amatu dañu nekk rek di xewlu moom nu mu la neex itam nga xewlu man lu la neex rek nga am kenn du la yëlifit ndax ñëppay tolloo xam ne ñëpp dañ leen di bu dee mag bu dee xale yi dañ leen di yëkkati bañ do dañ am bañ toll waxambaane trente-trois ñu fanweer at ak ñett mag ñi itam ñu wàcce leen bañ bañ toll bañ toll noonu nga ne amut kenn ku yëlif kenn kenn ku ne sa xewali bopp daal doo seeti kenn daana koo bëgg a seeti waruwaay maanaam chaise bi nga toog wala loolu bi nga toog nga naan ko jugal mu dem nga xam ne ci ci jaww ji ngay ngeen gis yonte bi nag fekk moom misaal na leen àjjana ba tey ne leen muñ leen yéen waa yéen waa kër Yaasir Ammaar nag moom jot faatu waaye daa mujj lañ ko doon waxloo mu wax ndax daa mujj bi mu gisee ne bàyyam faatu na ak yaayam dañu continuer di ko di ko di ko def lu métti ndax fi ne Ammaar dañ ko daa dañ ko daa dañ ko daa séndal ci ci sawara bi léeg-léeg loolu dañ ko daa def ñoom musri ko ni dañu saay saay dañ la daa jël takk la ci ay ci def takk la ci genn loo xam ne ay ak weñ la taal sawara ci suuf nag maanaam maanaam dina ko séndal sawara bi ñëw ñuy wax ñu lay wax di la reetaan sëñ bi génnal ci lii yow xam nga de amaar it daanañ ko naq ci ndox maanaam daanañ ko tëral ni jël ndox di ko di ko ko sot di ko sotti ba ba ba ba mel ne lu lab ci ndox mi di di xam coono yooyu nag ba metti nag ci la amaar daal wax lañ ko doon wax loolu ne daal tudd xërëm xërëm bi laata ak usa waaye ba mu ci jógee rek daa ñëw ci yonte bi tàmbalee jooy wan ne ko yàlla xam na ne sama xol moom ànd ci bu ma koy wax ci la yàlla wàcce man kafar aaya bi wax ne man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imaan parce que ñooñu bokkuñ mais koo xam ne yow ba ngay wax sa xol moom mi ngi ngëm gu fees gu gu mat sëkk ñooñu weddiwuñ yàlla mukk kooku ku baax la yonent bi ne moo tax yonent bi ne ko bu ëllëgee buñ ca delloote rek dellu waaw buñ la sonlatee rek waxatal waxatal baat ginnaaw yow sa xol gëm na te gëm nga moom te ñoom ñoo la gën a xam ne yow weddiwu weddiwoo dañ laa sonal rek am na ko ñoo abu fukkay xata ñu daa ko al aflax moom it ci ñi jëbbal woon la te banu abdidaar moomoon ko waaye moom bokk na ci ñi gënoon sonal ci ci ci ci jullit yi mooy ñi ko moomoon dañ ko daa takk ci buum di ko di ko diir nag ci biir dëkk bi la maanaam xam nga bul fàtte ne màkk ay doj la daanaka ay ay doj la ay ay doj la yoo xam ne maanaam ja ay jàmbara dañ ko daa jël nag takk ko ci buum nag di di di yoru fas wala dara di ko ci diir muy yuuxu leel ak mut na tël aw ak xam nga buñ lay diir moom fu ne lañ lay jaar la léeg-léeg ñu nga nga nga tase garab ñoon la ci tël léeg son maanaam nga xam ne yaram yëpp yàqu xabaab ibnul aras moom it ku ñuy wax ummu anwaar moo ko moomoon mi ngi bokk ci waa xuzaa moom it xeetu coono bu ne teg nañ ko ndax moom yàlla dogal kawar gi guddoon nga xam ne moom niñ ko am gone mooy kawar gi la ñuy xëcc rek kii de xëcc jëm fee kii xëcc jëm fee nga xam daanaka boo du du dese kawar ba pare itam daanañ ko teg ci xal yooyu ma wax daanañ ko teg ci xal yooyu mooy teg ko ci ab weñ maanaam taal ci suuf ab taal xal yi di ko fekk daana ci àgg ba xëm moom moom moom moom moom moom moom moom xabaab ibnul aras moom ñëw na ci yonte bi bis wax ak moom danaa ci ñëw léegi waaye bokk nañ ci leen daa def mooy dañ leen daa yóbbu dañ leen dañ leen daa takk seen seen seen seen loxo yi nii maanaam jël ab paaka tàngal ko tàngal tàngal tàngal ba mu ba muy ba muy ba mu fonk cuut ñu ñëw di la wax ne la waxal sunu xërëm yi wala wala wala ñu ñu ñu teg la boo bañee ñu ñaas la ko ndax am na ñoo xam ne dañ doxee ñàkk ay bët am na ñoo xam ne dañ doxee ñàkk ay tànk ndax dañ leen koy ñaas bu ñu ko ñaasee dañ ci àgg sax ci xëm tàggali ko seen sago loolu nag ak yeneen yu bare bare ba bari moo doon ay xeeti métit yoo xam ne dañ ko daa def jullit ñi junte bi nag daal leen wax ne léegi bu kenn feeñalati nga moom di leen ko nëbb di ko xumtoo moom yonte bi moom wéy na di ko feesal mooy di jullee ca kaaba ga waaye jullit ñi leen wax ngeen koy nëbb bañ ko feesal mel ne waxtu wi jot na mën na ma jeexal foofu yem foofu ba suba bu soobee yàlla di fàttaliwaat rek ne gàmmoo lu am solo la lu rëy ay ay ay ay mbir la ak ak i daraja Sëñ Tuubaa leeral nañu lépp Sëñ Tuubaa moom lépp lu baax rek wax nañu ko lépp lu amal nit njariñ nit wax nañu ko te lu mu wax lépp wér